كتابتي أحمد بن عبد الله قسنتي وسانني أن لا bâtiment plus import export si Touba mbokk ak si ngeen lépp lu ngeen itteewooti si wàllub caro import caro ba gën caro ba nga xamante ni moom la ñuy itteewoo si mbooleem àdduna wërngal këpp jàppaleen ay caro yu ñu importé ba Espagne Italie Chine si dëkk yi gën a mag a mag ñu ràññee leen si wàllub liggéey caro dama ni mbokk yi bu ngeen ko itteewoo si même réew bâtiment plus import export du ca morom waaw ñoo leen yembal ay caro sol faïence Italie ay 60 ay grès poli italien 60 sur 60 carreaux de haut de gamme ay grès italien tout genre faïence venant d'Espagne 25 sur 40 20 sur 30 damani am nañu ay produits jóge Inde 25 sur 37 wala yeneen gox si àdduna wërgal këpp ay faïence pour seen cuisine bu ngeen bëggee mu taaru rafet loolu bâtiment plus import export ak sina moo leen yembal ngir seen taaruwaañ 25 sur mu ci waaye nag mbokk ñëw leen ngeen découvrir suñu ay lumière am na nañu ay contact dernière gamme ay lumière intérieure wala extérieure ay spot sol escalier seen salon fépp fu ngeen mën a bëgg si biir kër gi bu ngeen bëggee lumière ca kaw kaw ca kaw mur ba ak si leen bâtiment import export mi ngi si Touba Daaru Xuduus jàkkaarloog marché bi ah mbokk yi nee naa lumière décoration ngir seen chambre seen salon seen balcon liñ la si defal amul fenn waaye nag ay ventilation assortie de lustre ah xanaa nag moom lii lu bees la dama ni tàq ma ni ay miroir seen salle de bain bu ngeen bëggee ay meuble de salle de bain si anam yu da ngay laal rek mu tàkk lii nag moo xarala kenn ku dul bâtiment plus import export évier si mbooleem xeet waaye nag baignoire deux personnes ba si une personne mbooleem xeetu robinet ngir seen salle de bain ngir seen kër seen waañ fépp daal si biir kër gi robinet yi yemb na waaye nag réservoir cinq mille litres ba cinq cent litres tànn sa la neex lay doon bu ngeen bëggee nag peinture jàppaleen ni ñooy ne numéro un des peintures peinture canadien ya gën a gën a gën baax loolu ngeen di peinture avec étanchéité bâtiment plus mani moom la ñëpp di wër ndaxte li leen indil si ay matériel yu xarala nee naa la suñu ventilation si mbooleem marque am nañu ay windi 90 ay kulomtom kulomtom 140 120 ak yeneen xeetu produit ay cabine de douche chauffe-eau yi nag waaye nag ba ci gën a neex mooy automatique léegi la ndox mi di tàng même pas une minute ah mbokki Sénégal mbokki Touba ñëw leen ngeen découvrir bâtiment plus import si Touba ñoo ngi si Daaru Xudus jàkkaarloog marché bi bu ngeen fi accès jàpp leen lépp luy carreau sanitaire mbokk yomb ba tax ma ni bâtiment plus import export notre force c'est la qualité.